jaral na ko mu tàqali ko jarbaatam ndax nee nañ ko mu ngay créer génération du congrès ci Kaolack ba mu jaral ko loolu kon ngeen xam kan mooy Abdoulaye Wade voilà des relations heurtées souvent ça arrive moo tax boo ko gisee mu attaqué nit ñi dal ci kawam PDS mm-hmm. e la bëgg ci xol bi mm-hmm. ba lépp lu nga xam ni nar na ko ko entachel rek yàqal ko ko rek. mu jóg taxaw mu jóg taxaw. waaw mais les comme li nga wax léegi nga ni euh, ñëw nga ñoom Zakaria ne la euh, waat na bu dugg affaire yooyu te tam sànq wax nga ne waat lu nekk si moom dañ ko cee def. donc yow ñan ña nga jàpp ne ñoo nekkoon ci euh, wetu Ablaye Wade di ko defal di ko defloo ak di ko wax looloo xam ni nii da koy yàqal. waaw ñi nekkoon ci waat autour du président Wade ay groupe yu bokkul la. Mm-hmm. xam nga maa ngi wax sori naan ko. dafa ñoo xam ni contrat à durée déterminée ñoo fa nekk. Mhm. contrat à durée indéterminée. Mhm. ñoo ñan la. am na ñoo xam ni Ablaye Wade la ñuy nekkal ba dee jot ñu dee dara mën ko soppi. Mhm. am ñoo xam ni CDD la bu naqaree ñu dem. ñooñu nag borom CDD yi képp koo xam ni gis nañ ne seen njëriñ sa diggante waat nekku ca. lu ñu mën a def danañ ko yàq. waaw ñu ñan la jox ma si kenn. non bon ñi kay du wax xanaa ñu baax ñu laa lay wax. waaw man kay ñu bañ ñu ñoom intéressé. déedéet ah, moo nag lee tax ñuy wax journal da seet ñi nga xam ne baax nañu parce dama ne président. ku ci mm. mel ne Diané chauffeur. Mm. ku ci mel ne madame mm. ku ci mel ne Farba Senghor. ñoom Buri ñoom Ka ñoom Benson clique boobu. dañuy tee ànd ak waat. kon léegi kon ku bokk ci clip boobu ñeneen ñooñu nag ku ci bokk rek bokkoo ci da ngay ñëw rek pour dund ci waat dem. kon tout le monde est dedans ay ñoom Omar Sarr nag. je ne connais pas euh, à fond Omar Sarr ndax ñoom itam. Ah fi laa leen fekk attention man 2000 laa leen xam. ñoom mhm. ñëpp vraiment c'est comme ça. Mhm. et euh, d'accord ci façon de faire ndax bi may dem élection 2009 ñoom ñëpp ils m'ont combattu. ah bon. oui ñëpp taxaw ne non non colonel bi li muy def c' pas normal parti mu bëgg dem élection locale. bàyyi mooy li xew léegi rek. mais ce parti un petit parti. man pourquoi pourquoi par le et un grand parti par le nombre. Hmm. moi je suis connu. ah je sors ici du Sénégal tout le monde est avec moi. ci dëkk naa rek yooyu. partout gisoo ma li ma sol xam. waaw ah, man a neex dégg la et puis loo neex la. Ah, <laughs> mais comme xam nga gars yi gars yi xaw ma dañ yàq sa der xaw ma yàquñu sa der mais gars yi nee nañu euh, genre euh, xeetu dóorkatu màtt yooyu nga xam ne vraiment colonel nee nañu ñu bëri nee nañu waat fi nga ko téye moo garaaw fi nga téye waat moo garaaw non fi nga tey si ay affaire yu xërëm ak. non non non ay féticheurs yooyu non non non pour vous dire que. ba féticheur. dama ne pour vous dire que président Wade soxlawul yooyu. Mm. man mi soxlawu ma dundee yooyu. Mm. soxlawu ma lenn. et je l'ai dit publiquement et je l'ai redit dans l'ensemble de mes sorties médiatiques pendant 12 ans Wade defaru la dara yow non dégg loolu kër gi Wade defaru la ko eh, mais donc depuis <laughs> boobu lay jiitu lay jiitu alternance yi hmm. mais man euh, am na ay changements a mais ventilé aéré hmm. je l'ai ventilé amoon na hmm. ay le château je dis le château du colonel le château du colonel gis naa du dans mes relations vous dañuy bëgg xamal ne leen man avant l'an dans mes business. Hmm. j'avais un chiffre d'affaires d'un milliard. par an man Cissé. ñëpp xam nañ ne lépp lu doon bouse d'incendie ci Sénégal maa ko doon gérer. ak société yi may créer par ci par la hmm. léegi laa gën a man a lijjanti loolu. 12 ans yi ma def nii. waaw parce que waat jox nañu yooyu ñoom pays di golf ñoom Qatar ñoom seen. dama wax président ma ne président day yow hmm. daal à yow fii maa fi ëpp nit. ëpp fii relation. bu ma ko booleeg sa bos nag xam nga ni kon raw naa. nga toj dëkk bi voilà donc jàppal ne. Mm. sumay relation ak relation Wade relation yeneen président yi. yëpp nga dajale yëpp laa dajale. <laughs> mu téye ko kon nag. yii jaaxaluma. moi je bi ñuy wax ay millions yi je dis non ñun dépassé nañu la. ay milliards ngay wax. voilà ay milliards la ñuy wax. tout à l'heure gis nga ñu fi génn. léegi fii waaw ñu xam ne kon ah voilà. Ah, donc xam nga ni donc ay bagages non non euh, nañu euh. vraiment les relations qu'il faut. Ah. Sénégal bu ñu déglu woon. Mm. coono du am fi mm. ci wàllu courant. ci mm. wàllu carburant ci wàllu leneen ak leneen. mais courant bi kuy kabaj actuellement xam nga recommencé waat na te yow nga nekkoon ci waat nga nekkoon ci wàdd yow amoon sa ak say réseau yi nga am sa dugg sa dugg yeeg sa génn yi mais pourquoi jàppaloo wàdd ba lijjantil ko. Euh, euh, ah, ku nekk euh, ak lañ la dénk. mais yow yow conseil transversal nga woon la. am naa man man bi am naa xam-xam bi daan naa ñëw ci moom ne ko président maa ngi ak bateau carburant mi nga ne taxaw ci Atlantique ba. Mm. mu ne ma wax ko ministre de l' énergie. Mm. su ma ko waxee ministre de l' énergie ministre de l' moom itam am na ay plan yu muy def ak. ay ay ay ay marché yu ñu war a lancer yooyu ñu ni ma non colonel loolu mënuñu ko duñu topp président parce que dañu war a jaar ci ay appel d' ma leen kon na xayrun man dam naa jox ji ko Mauritanie wala jox naa ko Guinée. génn ci <laughs> waaw colonel colonel Malick Cissé yaa ngi si face to face colonel vraiment yow daal yow daal yaa ngi noonu daal mais euh, euh, euh, colonel. man damaa bëgg tey nga wax ma nga wax tamit Sénégal yi nga xam ne ñu ngi seetaan dëgg-dëgg seen yaay jooju di Ablaye Wade nga ànd ak moom lu yàgg depuis 12 ans nga ànd ak moom tey lan ana tey lan nga mën a wax ne wax dëgg yaa si ànd na Wade indil na la ko mu nekk ngañaay loo ci gañe yow. Oh, enfin bari na parce que yaa ngi fi tey. ah parce que. yaa ngi fi tey ndax yaa ngi toog woo ma. Hmm. ne ndax ma ñëw def ak yow émission. waaw donc xam nga déjà ne serait-ce que ça rek. yokk na sama ciwte. dëgg la notoriété bi. notoriété bi yokku na waaw waaw vraiment. ça c'est déjà. lu ma defal ñaareel ba ku ànd ak nit pendant douze ans. kenn mësul ne nañ cam. kon xam nga ni ñaar ñu ànd ànd nañ ci. mais ta wax nañu cam ba taay de. xëy moom waxuma ko laa la. mais gars yi wax nañ la ko. bu ma ko waxee rek mooy dama ne dégg luñ ko wax ci biiram. ah d'accord mu tàmpet ca saa si. woolu ma ma ñëw mu ne ma waa man xaw ma woon kii ma expliqué ko mu daal di gestu rek moo ne sama gars yi da jaarati nañ <laughs> sama gars yi jaarati nañ toujours ñu jaar fi toujours gis naa ni mu def ak diggante Pape Diop gars yi fi jaar rek. waaw waaw léegi léegi bala ñu bala ñëw si Pape Diop colonel euh, <laughs> colonel ma li ma bëgg nga xam mooy euh, euh, nga nga may tudd si ay anecdote si Wade Wade yuuxam yooyu mën a yu kon yow mos na laa yuux mos na la toroxal. ah non non non président man dafa amoon kersi ci man. Mm. mësuma taxaw mu yuuxu ma. Hmm. au contraire su ma demee ba d'accorduñ ci xalaat def naa ma je suis désolé j'ai une audience là si c'est s'il vous plaît dàq bu rafet dàq bu jekk. mais dàq ma dàq bu jekk. mais du ma xam ni kon mësuma wax colonel vene hmm. toujours est-ce que vous pouvez venir la may wax. Hmm. pour vous dire que wàddu ku ku yi ku baax la. xol bi dafa baax ah. dafa bëgg moom ni muy respecté kilifaam. Mhm. yow itam nga respecté ko noonu. Mhm. man dama gis digganteem ak tonton Moustapha Wade tonton Moustapha Wade daan na ko yuuxu gëdd ko. Mhm. mu garde bu ne pat. moom itam noonu la foog ne noonu la nit war a doxeek moom. c'est pourquoi il est souvent incompris. noonu mu yuuxoo noonu dafa foog ni ni muy nangule kilifaam la ko ñëpp war a nangule colonel Malick Cissé yaa ngi ci euh, face to face colonel euh, Abdoulaye Wade euh, dàq na ñoom Pape Diop ñoom Masek ak ñoom Abdoulaye Balde ñoom Mamadou Seck ak ñoom seen ñooñu dajaloo créé seen bokk gis-gis da ngay tàccu wala da ngay jooy damay jooy su jooy waree mm-hmm. ndax uqa ñu ko bindee mooy ndax war na mm-hmm. may itam nee ndax war na. ndax famille képp koo gis mu bëgg famille toj. famille tas kooku seytaane rajim la. kenn waru cee bëgg ci famille bu tas. kon nag lii fi xew. lu ñu méttitloo méttitlu naa ko depuis dégloo ma ne depuis Idrissa Seck dama ko méttitlu méttitlu ko depuis demu ki gën ko méttitlu ci demi soxna Aminata. kon lii kay mënu ma ko mënu maa neex. dama ko méttitlu su ma sañoon kenn du tas. lan ma ko waral sa xalaat. Eh, dama ne la président Wade PDS comme fasu naaru góoram la. Mhm. daf ko bëgg ci xol bi. lépp lu ko nar a entaché nar tardeel ko nar fexe ba du raw il faut mu jël karwaasam kar ak yow. mais est noonu la. noonu la parce que bëgg-bëggu <laughs> mooy capitaine du borom. Mhm. te moom dafa bëgg PDS ci xol bi. Mhm. mais dàq yi mu dàq parce que fi ñu toll nii euh, vraiment ñi nga xam ne ñoo defoon. ñoo dàqul nag kenn attends nañu dem ci commencement ba. dafa dul ànd ak yow ci xalaat nga ne ko man lii laay def muy la man d'accord ma ci loolu. te li ma bëgg mooy am. te li ma bëgg mooy am. mais loolu nag mooy. nag ah, mooy bi. loolu nag moo baax mooy kilifa parti bi. mooy parti bi lu ko neexul am. lu ko neexul waru cee am bu fekkoon ne. c'est pas collégialement. dëggaluma la hmm. bu fekkoon ne hmm. dañ doon jóg di definiir mu wóor ko ne ko ñii ànd ak ñoom moom ñëpp. ñoo bokk xalaat ci mbir mi bokk bëgg-bëgg ci mbir mi kon du am kenn ak jote mais yenn saa yi moom sa position c'est radical PDS daal dama bëgg muy raw rek may kontaan ak lépp ku ko lu ko nar yàqal rek bu boobaa adversaire am ko man dëgg la ma ne damaa dem élection 2009 en tant que parti de contribution bokkuma ci listu élection man tamit sama liste bopp gaa yi coow fii kërte kërte kërte mais moom óor na ko ne ko Malick Sy mi du ma yàqal bu defee dara rek anticiper na xam na lu tax ndax ngandal bi gars yi waxee waxee wax bañ dem élection ma dóor gaa yi ñu daanu ma gagné ma ñëw mu wane gars yi li ma leen doon wax a ngi nii kii joxuma ko un franc mi ngi nii dam na gagné ji indil ma nit ñi delloo ma waat mais pourquoi mu nangu loolu te nangulu ko ñeneen ñi ko ko jëfee la cest ñu ñëwee ñoom ñu ni ah dem nañ élection présidentielle ak ni ko doxale élection présidentielle ba ni ñu ko doxale du dara ils n'ont pas travaillé ah bon oui